ki nga xam ni moo waral jotaay bii di Seydina Serigne Saliou sëñ Seynu sa waa lu ne la daj ngir jotaay bii am ñaar fukki at yu teg benn mu lang saxaar bàyyi ko Touba tàggu Serigne du Moustapha keroog xombal la wàcc diggante xombal ak dëkk bi ñuy wax ci la wunte da koo tànku da koo dox ak tànk bis boobu la tàmbali liggéeyal sëriñ Touba bi ba mu dikkee Cilla góor gu ñuy wax Serigne laamin Cilla la fa fekk ku dem Cilla soo ko laajtee xam nañ ko ba mu agsee ñu doon wax sëñ Lamine Cilla ni ko daa am kilifa gu fi ñëw nee na Mbàkke sant dañ ca doon teg daan ni waaye dafa mel ni daa wér di wér dim xel ndax melokaan yi mu yoroon ngir fas yéene wut yàlla ba ni ko nikki téye fas yéene koo tasaari ci jëmm yi sëñ Lamine daan ni waa wóol leen ma ko rek mu ñëw toog. nuyu ko nuyu bu tedd taatu garab gam ga ko sëñ Lamine dalaloon ba tey ma nga fa ba ma agsee sëñ Lamine la ni ko tur wi mu ni ko saalihu ca woyof ga mu ko saalihu mu ni ko mbàkke mu ni ko sant nan ni ko mbàkke mum kan mu ni ko hum mum sëñ Tuubaa de lañ doon wax sëñ Lamine si la buntu néeg bi mu nekk jël bi bi ko dikkal dafa mbëkk néeg bi ba pëlle ca ginnaaw daal ni ko sëriñ saalihu mbàkkem sëñ Tuubaa mu ni ko waaw ana foo jógee mu ni ko Tuubaa ci ndigalul sëñ Modou Moustapha lu leen di mu ni ko saxaar gi laay yéeg mu wàcce ma xombal ma tànku ñëw ci la laa Lamine si la jooy wargaal ko ba coono bi wàcc mu ni ko lu leen taxoon a jóg mu ni ko wut suuf su yaatu su ma wute ngërëmal yàlla soo xam se ni képp ku ma àndal lu ma mën a dajit ëllëg fu taalib islam takke loxob saaliw ne ca biir sëñ Lamine si la daal ni ko wëral fu la soom ñu lijjanti ko mu yóor ba gis suuf su got fa la tàmbalee ab liggéeyam doot googee ba mu ko sancee daanaka ba mu def ay juróom-ñetti at mu waaje fa war fas wu jigéen fas wu jigéen waaw wu xonq dem sanc daaree xabbaan daaree xabbaan sanc ba métti na métti wu ndoo xam ne maari day taal yi barke borom tuba sëñ bi daana fa sanc am néeg ànd dongo yi dem ca tool ya wëlbati ko dikk fekk ñu simpi néeg bi sànni daana ànd ak dongo yi ca toolub xabbaan ba di liggéey ñu taw te fa tooy xëpp ngelaw dab leen mu ni leen kenn ku ne téyandul sa sama jëmm jii ñu téye téyandu ci moom muy dox daanan xëy ci tool wàcc añ jot duñ am lu ñu añee ñu simbraaktal bokk ko ñu xëy xëy wàcc duñ am añ lu ñu añee mu bokk ak ñoom fande moo tax déggoo la kat ba wax sëñ Saliou jëlu na xëy na jànq na gont na yokk tawte na dox na ci mbooya denc na fande na ngir jot mébétam mébét baa ngi nii waaw fande na deññe na xëy na ngir jot mébétam xëy na ci yàlla xëy mu teel ak naaj wu tàng xiin wu ñuul du tax mu naan fajar gu teel laa xëy si woon naa wàcc dem mu mutti mu mitti mu muñ muñ na ba jot ci mébétam kenn mës ta dégg njàmbatam nattu lu weex weex Serigne Saliou gërëm day mel ni koy wan naa su lem ñëw na ba dem te yàqu fi te kenn du wax ni yàggu fi sëñ Saliou tawféex ju rëy la dund fii setal na wecc aw sasam ñu laaj ko woon sas la mu ni sas wa yoneen ba tobbi woon Cheikh Bamba mën ca góor ñëwoon sëñ Saliou def na ca loolu ka digle woon nee na ko jabb ngërëmam ka digle woon nee na ko jabb ngërëmam mu ne xabbaan googee jaayanteeg saa borom lu mu liggéey moo ki dongom jox ko ki fi nekkal sëñ Touba sëñ Seynu ki nu dajale fii ku fi nekkal sëriñ Touba jëf na ci yow loo xam ne sab taaw jëfu ko sa taalibe ba la gën a gëm jëfu ko tàmbalee ci Cheikh Mamadou Moustapha sëñ Saliou fasoom njëkkaam ñu ko yooyee mbaa daan mu rafet bañ koy seetaan si daa xëy daan di lu fi dajale nit ñi ñu ne ko fas mu rafet yi la ñuy seetaan si mu ne kon yeyootuma ko jox leen ko am di Moustapha ba ko fi nekkal Serigne Touba gërëm ko foofee am na fa juróom-benni at yoo xam ne sëñ Saliou bu cees nee na néegum ñax bi muy fanaan amul buntu néeg mbaam yeeg muus yeeg lépp nañuy dàqante di ko fekk ci biir ba benn bi sëñ Saliou Touré ni ko Mbàkke dañoo war a wut buntum néeg lu ñuy dugg ci biir néeg bi mu ne ko sàllaa bëgg naa ko waaye dama amul jëggi ca booba ku dul sëriñ Mandumbe Xabbaan dàqu koo bay ci ci ci mu murit ku dul sëriñ Mandumbe Xabbaan jërëjëf sëñ Dame ku dul sëriñ Mandumbe Xabbaan ëppoo ko mbay waaye mu teg sëriñ Tuubaa ni sama mbay maag samay taalibe duñ ci mus dara ku musa doon Cheikh al ay addiyam di ko ci yéem daleel ca Mustafal Karim ba ni mu doone sang ya ca musta am menn pexe mu dul jubbanti ak joxe ñun moo nu teg yoonu texe mu toppee woon ca sang ya miinal ñu boppam ba nu miin jëmmam ja ngir waaju ko miin kenn du la yóbbu ci wu doxinu bokkut ak woo sang ya sëñ Saliou daa nañu woo teg ki wetam ku nekk ñëw teg ki bëtam mu di ñu séddale mbiskitam di dégg la raw ca sang naan ñu defar te xoola laaj jóg jëm ci daaw ko waaj ku mu gëj a gis daana ko laaj moo gën a mat ca sang ya fu mu sa biir këram tout tànk yaa ngi ci gronam sëñ yu di yeete mbaa muy joxe ñam ràññeeku lool ca sang ya ñu laaj ko daan ne ko nu mu daan def mu ni ci suñu biir la daa nekk mës ta jóg ci suñu biir guddeeg bëccëg bi teeki biir moo tax daa làqu moo ngi riir ci xol yi wóor na sang ya dal gaa defal yoonu murit duñ gis mu jàq mbaa mu tiit moo tax mën aa cey bi leen jiit kémam desul te sang ya moo ñam ma semmal suuf ngarom gu réy gaw raw ko foofu sëñ saali woyof ba daana toog ci suuf ca faa xoowoon ca sang ya gaa ñi daan ne moom ko mu yebal ma ni leen sëñ saali yemut ak kenn ci at yu néewam la mel ni baayam fab laxasaayam di jëf musul ba di sampi daara ka yar ci xaara raw subti jaara bu tooge jalba doora woote ca ñam jëboote ngir bëgg a téete tegtali sëñ ba xam nga lu mu wax jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la woon ca mag ña doonoon sëriñ ba ñooy mag ña Cheikh Ibrahima Fall sëñ bu ndumbe xabbaan sëñ dam Abdourahman Lo Cheikh Issa Dieng borom xel koom jël responsabilité jox leen ma ndaw nga def ci ñoom lan la sëñ Tuubaa defoon ca mag ña foofu nag li ci gaa yi teg dañ koy yàq ñoom dañ naan sëñ Saliou dani su ma ko yeyowul barkeeloo ko mooy sëñ Tuubaa lépp la yeyoo ñun ñii ñoo yeyowul la nekkoon ca ñoom Cheikh Ibrahima Fall mu ni yiit su ngeen ko yeyowul man sëñ Saliou ma barkeeloo ko jox leen ma ndaw ñi ma def ca ndaw ña la lawoon ca mag nga doonoon sëriñ ba lan teg ca loolu lum na ba toola ku weddi xoolal mu def ci ñëm baax ñoom sëñ Asay noo ngi nii haafis Quraan yu laqi ridwaan boroomi kéemaan am na ci ñëm baax ñu laqi xam-xam mbooleem lu nit xam ta manqué wunu gëm am na ci ñem ba ñëpp di jàmbaar yuy bay angaar yu rëy ba doy waar duñu xaddi duñu ba sëñ Saaliw lépp ci yow la monu daa xamal yàlla ak yenente bi bégal tarbiya moo nu ko defal ku ni wuute ki ci amatul sëriñ Saaliw Mbàkke dongo yi tey ji ñëpp ngi jooy jirim yi ak faqiir yooy goni ak mag ñaa ngi jooy fu ñuy jëlee ti xel mu dal Serigne Saliou Mbacké dongo yi tey ji ñàkk nan mag ñi kasaaka ñàkk nan fu ñuy jëlee ti Serigne Saliou waaja daa papi gone ki tam-tamal dafa doon bés bu màgg suñu borom xool weer bu gën a màgg indi si bés bu màgg bi yi nga xamante ni mooy leetul xadar ndax bés bi leetul xadar kase moo si feeñ déedéet am na beneen événement bu ci am mooy si la alquranul karim wàcc cheru ramadan allazi unzila fi l quran hudan linnaasi wa bayinaat min al huda sunu borom dafa wax ne alquranul karim maa ngi ko wàccee ci weeru koor alquran nag téere bu màgg bu sell boo xamante ni waxu yàlla la du wax ju diis ndax sunu borom wax na ni law anzalna hazal qur'ana ala jabalin la raytahu xaashian mutasaddian alxuraan bi bu fekkoon dama ko wàcc directement si montagne da nga gis montagne bi day xar ndax montagne àttanul leerug yàlla muy alxuraan karim ñu sunu borom alxuraan boobu yaa ngi ko wàccee si weeru koor si guddi nga ko wàcce wala bëccëg nga ko wàcce wala ban événement la tombel sunu borom ne inna anzalnaahu fii laylatil xadri yàlla nag ne alxuraan nag maa ngi ko wàcce si bu màgg muy guddig laylatul xadr dem na sax ba ne ko kitaabu ko diini waxil li wa mooni si alxuraanu karim man sëñ tubaa mooy sama diine mooy sama xarit waaye alxuraan mooy sama wéttal sëñ tubaa nee alxuraan kese laa doon wéttalikoo xam ngeen ni sëñ bi ba muy dem si géej gi sax alxuraan la àndal ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa alxuraan dafa yàgg ànd ak sañ tubaa sëñ tubaa téye ko nu ko kenn téewewul fonk ko nu ko kenn fonkewul ba sax ba mu demee maa yomba mi ngi naan li lii ashhad bi axzi kitaabillahi fii ko hunaa yow sunu borom yow weeru koor nanga nga ni boo demee si sunu borom ne ko fii ma nekk si maa yomba maa ngi taxoog téere yàlla bi saa su ne kon sëñ tubaa bu ko sunu borom jëlee jox ko téere bi kon maanaam daf koo yayoo ndax maanaam daf ko teg fu ko kenn tegul ndax sëñ bi daan na naafila alxuraanul karim guddi gi ku xool jamono ji ak ni muy doxee nga xam ni sëñ Tuubaa alxuraan ci boppam donn bi dafa yegsi waaw xam naa dañuy bañ a guddal rek bu ko defee incha allah ñu jox sëriñ bi mu daa di euh, àggali li nga xamante ni mooy guddi gi. kenn ci taalibe nee di doomi jàmbaar ja nee ka kenn dul fàtte taalibe ba ku dëggu ko nee kenn du ko fàtte nee doomam moo koy ubbil alquranul karim waay waay sëriñ bi ne jotaay bi daa mel noo xam ni nee li war a jàll lépp mi ngi jàll nee message bi jàll na digg bi ubbil inna anzalnahu fi laylatil qadr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 sadaqallaahu al-aziim. jërëjëfati sëriñ Saalix. jërëjëfati sëriñ Saalix. nee leen jërëjëfati sëriñ sëriñ Saalix. ñu ngi santati ko tedd bu wér. ci ni jataay bi bindoo. di feeñal sunu mbégte lool sunu xol dafa fees. ndax ni programme bi tëddee kenn ku ne am pas-pasu feeñal sa yéene ci bis bi te bëgg képp ku am yéene rek sa yéene nga mottali ko ndax jataay bu nekk day wax ci lisaanul xaal njëkk muy wax ci lisaanul maqaal kenn ku nekk ci ñun yëg na ci xolam ni jataay bi wuy na boroom te mooy laylatul xadr guddi gi li tax uh, ku tedd ki amoon ci yitte banaan alhamdulillahi li mujibi sil qadar man qassana fadlan bi laylatil qadar mooy de guddi gu wecc junniy weer xam nga waxtaankat yu bari ak boroom xam-xam yi dañ naan laytul xadar ñoo eh, gën junniy weer waaye dayab nga ni li laytul xadar sax xamuñu ko ndax genn guddi koo xam ni jaamu ci yàlla dana mel ni nga jaamu yàlla junni weer laylatul xadar rek moo ko am xam naa laylatul xadar sax moo gën a siiw waaye alquran ni mu tuddee laylatul xadar noonu la tuddee laylatul mubaarak inna anzalnaahu fii laylatil mubaarak alxuraan wax na ko ni mu waxee inna anzalnaahu fii laylatil qadar tudde na ko laylatul mubaarak muy gudd gu barkeel moom alxuraan moo tax heure bii ñu toll nii jamono yi ñu toll nii ñu ngi dëgmal di rafet njort ci nii dàkk nañu bis bi comme ni ñu ko sëñ Tuubaa digalee heure bi bu ñu ci yeggee géej gi ci boppam day lewet heure laylatul xadar dëgg ko xam géej gi day lawet du saf xorom vague yi jóg noonu di daal danaan tekk dutu yëngutu nature bi dafay soppeeku asamaan si dafay soppeeku gaa yu baax yi itam dañuy bég ba seeni bëñ di feeñ ñiy dund ak ñi fi nekkut moo tax ñu bari dañ koy wër ci fukki fan yu mujj yi ñi di ko wër ñaar fukki fan ak nàngam yi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñaar fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak juróom waaye ñun ni ñu ko ku tedd ki tënkale mooy lakkasun niyatun sahakun rayas xukkajun jukkatun sahakun mayas dafa def calcul boo xam ni bis bu nekk rek bu nekk weer yi feeñ na ci calcul boobu dañ naan bis la xadar nangam alxames lay tombeel guddi ajuma lay doon fii ne ba keroog àddinay tukki laylatul xadar gii ñuy def ñun murid yi guddi ajuma rek la mën a nekk bu fekkee ni dafa feeñ bisu dimanche lañ um day nekk kësul mooy guddi ñaar ko juróom-ñaar bu fekkee dafa feeñ bisu samedi dafay nekk guddi ñaari fukk ak juróom noonu la ko ku tedd ki toftale ba semaine bi jeex moo tax guddi gii mooy guddi gi gën a tedd ci mbooleem guddi buñ ci yegsee nag bàyyi suñ lépp toroxlu julli toog def li jaar bi def digganteem ak boroomam mooy ñaan yàlla ndax jaamu yàlla amul lu ci ëpp doole ñaan li gën a màgg ci li doomu aadama def ci xeeti jaamu mooy julli te julli lépp ñaan la la ko tàmbalee ci takbirul ihram gi ngay def booy julli ba ci bi nga naan assalaamu aleykum booy sëlmal diggante bi loo fa da ñaan boo defee takbiratul ihram boo nee allahu yaa ngi baab mooy yow yàlla maa jàppoon àdduna nga wàcc say loxo ci suuf ni ko ak bëru banaa ko jublu la mu ne tekk di la loo ko bëgg a wax nga ne ko xanaa bismillahi rahmaani rahim xam ni yaay ci gën a sell aw tur ci tur yi te gën a barkeel te lu waaye tàmbalee ci yow mu barkeel yow mi nga xam ni yaay xéewal tey ak ëllëg di yërmaande ku gëm ak ku weddi di tawféexe ku la gëm noonu ngay defe tawassul ba faatixa bi jeex ba keroog nga naan asalaamualeykum amut lenn lu ci génn ak ñaan moo tax ku tedd ki ni adduaa moom silaaxul mumin wa nuuru samawaati wal ard jullit bu nekk défense bi dox digganteem ak lépp lu koy lor mooy ñaan nee na ñaan sax mooy leeru asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar looloo tax alquran téeméeri saar yi ak fukk ak ñeent lépp ak ñaan la téeméeri saar ak fukk ñeent lépp ñaan la da gis koo xam ne dafay jàpp ni alquran da ngay bind amana rasulu rek wala lawansalna haza alquran wala laqad jaakum wala ayatul kursi yi doog a dugg ci ñaan alquran lépp ñaan la alquran foo tibb nammel ga la yàlla di xool mais du xool la aaya a di wax yow li nga bëgg a wax rek lay xool moo tax waxtaane ko na mu jugee ci euh, lawhul mahfuus ñëw ci baytul isa asamaane juróom-ñaar moom alquran globalement téere bi yépp ak nam bàyyeekoo ci asamaane juróom-ñaar di wàcc événement par événement loolu waxtaane ko xaju fi te mënuñoo mënuñu war a dagg kenn ndax man damay bëgg kenn ku ne gis sa bopp ci bés bi ndax lépp ay tawfeex la waaye nag alhamdulilahi rabil alamina ba nga xamee ni ni ko ku tedd ki bëggee defee nañ ko noonu mooy dundal nañ ko ci sunna moom guddi gi xaside yi buñ ko doon teewlu ba ngeen pare rek ñu ñaan rek xol yépp fees nañu xaside yi ngeen fi jàng rek ci njàngin mu set rafet te sell képp ku ronu baas bi yëg na ni baas bii baasu tawfeex la te xam na lépp Sëñ Tuubaa bi kon nag maa ngi leen di sant bu baax ci nii ngeen doxale leetul xadar gi yitte ji ngeen def ba teew ni ngeen di dundale bis bi maa ngi leen ciy cant cant boo xam ni foo ko takkal weesu na maa ngi sant Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke mii ci lim ma defal sëriñ Baara Xalil mii moom sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Touba Xaadimu Rasuul daf maa woo barki démb ma ne ko Mbacke yaa ngi Dakar mu ne ah, ma ne ko damaa sàkkoon ak ren nga laylatul xadar ak man moom sëriñ Baara moo tax baas bi ba ba ngeen xam ne ku ko fekkee am nga sens. ndax li kii doon leeral ci diggante seen Fallou ak sëriñ Saliou dina leer ci kanam tuuti mu ni ma ah yow de loo bëgg lu ne dinaa la ko bëggalee waaye li ma ci jaaxal mooy soxna Séema yónni wax na dëgg waa wu jigéen soxna maam Fatim Mbàkke mu sëñ Abdou Xaadir soxna Séema yónni de mu ne ko yitte yi ma war a dox te alxames boobu nga wax noonu ci laa war a xëy ñibbi ma ne ko ah kon de loolu moom mu ne su ci dara waaye daal bu la doon fekk Dakar am na bëgg-bëggu Mbàkke nga laytul xaddi rek man ñu toog ba ca ëllëg sa mu woo ma téléphone ni ma sa waa ji day daa mel dalaa bëgg la li nga bëgg ma ne ko kan la mu ni ma Sëriñ Saliou ma ni teg mu ni ma mankat kat damaa fabu far ñu tàggee ma sama taalibe boo xam ni soxna si nee ma naa ko taxawu ajjuma doog a ñëw kon daa mel laytu xatar fi la may fekk kon dinaa ñëw ànd ko ak yow ba bis bi jeex kon nag loolu mbàkke na nga xam ni lu rëy la ci man maa la ciy sant bu baax di la ñaanal ci barkeeb sa maam ju tedd ja Seex Muhammadul Fadal ak sa waajur wu tedd la Sëriñ Xalil Mbàkke suñu borom dool la ay tawfeex ba faw maa ngi sant mboolem délégation yi fi ñëw gis naa ñëpp suñ konaare nga baas bi moom ku nekk fi ay gendarme fi ñoo xam ni seenu col tax na mënoo leen xam yan garaat lañ amee ay taalibe lañ ci kër gi lañ bokk dañoo jépp lu jox seen bopp waaye ay takk der lañ benn ci konaare mi toog keroog bi muy jox boppam Tuubaa la ma fekk waaye loolu doxul digganteem ak pas-pasam mu bàyyi yitteem yëpp ànd ak soxnaam soxna Fatou Thiam ñëw teewe jataay bi maa ngi koy sant baax di ko gërëm maa ngi sant baax soxna Aysatu Thiam mi ñu tudd léegi bokk ci kër Cheikh Omar al yi waaye lu ma ne rek ma ne ca yor cofeel bu dox sama diggante ak moom maa ngi koy sant bu baax te di la gërëm soxna Maane mi itam di mag ci soxna si soxna si soxna day faatu lépp lu ñuy def rek at mu ne day bàyyi yitte yëpp ànd kook njabootam ñëw ànd kook ñun loolee maa ngi lay seeral ni am naa ci mbégte lool waaw sant naa bu wér ku ma tuddul rek na nga xam ni xel day fatt te it yéen ñëpp ci njaboot ngeen bokk jëf moom yàllaa koy nangu wax da ko nangu wax day yàq mais dafa nanguwul dara jël suñu borom moo koy nangu mais ay wax du ko nangu mboolem dëkkandoor yi nga xam ni soxna Anta Lo nga la may jàkkaarloo suñu cheikh bi yaay mi nga xam ni moo taxaw temm ci ñu fesal mbirum Serigne Salim ñu ngi toog ak jëwriñ ñi àndal fii ci koñ bi nga xam ne damaa ñëw rek ñoom ñëpp ñu am pas-pasu leeral seen xol ci ànd ak ma liggéeyal Serigne Touba loolee ni ngeen xam ne lu ma bëgg la te tawféex rek moo leen ci fekk nag. sant naa leen bu wér waaw maa ngi sant bu baax ñi ma dékkoon organisation bi jëwrin Pam Modou Ndiaye jëwrin Pam Modou xaaral ba toog ci sijaada gi ba jàkkaarloog jaan yi di nga xam ni man ku ma jàppal tànk ma teel say mbagg man Ousseynou Kane ku ma jàppal tànk ma say mbagg man rus naa nit di am ci man yaakaar dama ko rus yaakaar ja di tas rus naa loolu rus naa loolu sëñ baara ngi mën na maa seede ndax moo nekkoon ci diggante bi waxtaan nañ ci dafa am benn soxna boo xam ni ñetti fan muy wat rek di jooy ndax moom nee na daal dafa am benn ay élection yu am seen dëkk te soxna si nga xam ni moo opposé wu bu gañee ñoom ñëpp dina leen dina leen ci réew mi yegg na ba ci ni sax moom bu soxna soo see toogee ci réew mi yegg na ba ci ni sax moom est-ce que ak muritam dana dëgërati ndax nee na ku mu xam ci gaa yi baax yi woon la sëñ Baara mii waxtaan nañ ci ma ni ko waxtaan ceeg moom waxtaan wu yaatu ndax loolu lépp yaakaar la ndax ñoom ay étranger lañu nekk bitim réew am ku taxaw tëkku leen ni leen su ma gañee élection yi ngeen génn réew mi te fii lu fay am Sëñ Tuubaa la ko jox kon bu tànnee suñ jëm muy ñàkk solo yii jaral ko lu ne def ko yëkkati lu teg ko suñ ngir rek bu loolu am loolee day jëf naa ca waaye sant naa sëñ baaram it jëf na ca ndax biñ ci waxtaan dañu ma sëñ bi nañ ko jàppale man nag du ma ñaan damay dem sëñ Fall wax ko suñ baaram wax loolu waxtaan nañ ci waxtaan bu yaatu du ma ñaan damay dem sëñ Fall wax ko ko ak am fu la te noonu lay def de moom fi ne nii du ñaan de moom nee na moom man du ma tàyyi soxla bu ñëw fii soxla tayiwul du ma tàyyi sama tànk naa ami tànk rek waaw moo ko wax de nee na naay ami tànk rek dem barab ba maam fajal soxla dem yoonam ndax walli wi duñ caaxaan am na benn sëtub sëñ Baara wax ma sëñ naa ko waxam déet boo xam ni ku bañoon wujj la siiw na loolu Tuubaa saa yi ko takkalee wujj mu dem ca barab ba ñaan kooka fase kooka dégg naa ba ci ñeenteelu jabar jëkkër ñëw ni ko teg ma cee rus mu ne ko mu ne ko man kay du def dara ndax kii nur na ma ko yaru mu xoloog moom rek dawaat si ni ko maam ñëwati nañ de nga xam ne daa siiwoon Tuubaa lool ba daa mujj sëñ bi mujj bàyyee takk soxna ngir saa yu demee kalaane ko sëñ baara gaa yu baax yi ñu ngi fi di baax de ñu ngi fi di mel ni ñu war a mel ma xamal leen ko tey am na fii ñoo xam ni bu ñu jullee fajar ba noppi seeni soxla sëñ Saliou koy fay gratuit faj gratuitement parce que dañ koo gëm te ci man lay jaar dañ koo gëm day sotti gratuitement barkeb Rasulullah yi ndax dañ koo gëm waaye keroog bég naa lool ndax dañoo xamul sëriñ tubaa rek buñ ko xamoon duñ doxale noonu kon nag waxtu yu jot na mënuñ cee teg dara ñun ñëpp nañ toroxlu taxaw julli ku ne nag nga toog place bu jekk jublu penku te diglu boroom jamono sëñ Baara li ma lay ñaan rek mbàkke yàkkamti nga lool waaye comme yaa fii lenn sëriñ Fallu nañ ñaan rek mbàkke jaam ñi toog te am ci ñun yaakaar ndax ku leen jox ma saabu am na ci yow yaakaar mbàkke nañ leen ñaanal boo awee fii ma aw fee ñu daje dara du jàll ñu ñaanal leen ci guddi gi yàlla fecc leen defal leen tawfeex ba bu ngeen fi jógee summeeku ci lépp lu ngeen bëggut summeeku ci lépp lu ngeen bëggut am lépp lu ngeen bëgg kon nañu waaj mbuub la dem indil ma sa yaa daga ca ñu yeesal fas yéene julli ba nar jot nañu waaj ëpp naa def mbàkke toroxlu ñaan yàlla faj aajo yi ñaan nag mën ngaa ñaanal ku ne ba mu aju ñàkk gëm gëm moom boo ko defut mënuñu laa ñaanal wax dëgg yàlla ñaa- ñaan du dal ñaari nit du dal kuy sikki sàkkat du dal ku gëmut ma xamal la ko tey wallaahi ñaan du wàcc ci kaw kuy sikki sàkka du wàcc ci kaw ko gëmut ubbil sab xol rek nga jox ko Sëñ Tuubaa te gëm ni lépp day baax bu ko defee lépp baax waaw gëm ni lépp day baax rek bu ko defee lépp baax waaw maa ngi sant bu baax presse bi waa DTV ñu ngi fi di tele boo xam ne miin nañ ko ci kër gi waa Tawfekh Production ñu ngi fi di chaîne boo xam ne miin ngeen ko ci kër gi waa Sénégal set ñu ngi fi muy Pape Ngagne Ndiaye dañuy xoolee gis nga nit di nga koy xool image am te doo xam mooy kan mais maa ngi leen di seeral ni Pape Ngagne Ndiaye taalibe Serigne Saliou la te ku bëgg Serigne Saliou la li tax ma wax ko mooy damaa wax soxna si soxna day faatu fekk na soxna Faati Dieng maa ngi koy siyaar moom it ñëwoon na fi léegi. laa ne ko jox ma numéro Pape nga Ndiaye mu jox ma ko moom moom Sénégal 7 ma ne soxna Ndeye Fatou wool Pape Ngagne nga ne ko suñu Ousseynou Kane nee na daa bëgg nga yebal sa télé bi mu ñëw couvrir événement bi ci barkeb Sëñ Saliou soxna Ndeye Fatou woo ko dafa ne màkk dafa umra ji mu bind ko message ne sëñ Ousseynou Kane dala sëñ Ousseynou Kane moo yebal ci yow man soxnaam laa nee na daa bëggoon nga yebal Sénégal 7 ñëw couvrir événement bi gratuit barkeb Sëñ Saliou ca tàng-tàng Pam Ngagne Ndiaye daal di yónnee ay élément am dem leen ko firi ko ngir lan ngir Sëñ Saaliw laajut dara xam nga boo nekkee ci tele nag professionnalisme gi professionnel dëgg buy wax doo xam fu mu féete parce que dafay professionnel moo tax buy wax man ngaa bañ a xam kii kan la waaye bu summee mbubb moomee nekk ci terrain bi boo dajee moom di xam ne kii taalibe Sëriñ Saaliw dëgg la parce que sacrifice bi mu def nii nii nii gratuitement ku bëggul Serigne Saliou gëmoo ko mënoo ko waaye defal na ko koo xam ni daraam du taxawal fii laa ko wax ngeen dégg ko fii laa ko wax ngeen dégg ko xam nga ab site la site internet la ab seen la bis dana ñëw ngeen jàpp ko mu di télé dem ci canal bi Sénégal 7 bis dana ñëw ñu jàpp ko mu di ab tele denc leen wax ji bu leen neexee maa wax ndax ki ko moom dafa bëgg sëriñ saaliwu di def te yàlla tax te gis nga koy def te yàlla tax loo bëgg mu sotti xanaa xamoo nii boo gisee sunu boroom yàlla ku mu jox alal lu mu bëri bëri teg la soxla yu ko ëpp da kar da day daa bëgg su su la bëggee këlëb xam fu muy jaar sunu borom waaw lu mu la jox ci alal lu mu bëri bëri soxla yu ëpp na ko man maa la ko wax bu ko defee nag boo demee ba bew rek dalay teg feebar bu ndaw nga nga def ci alal ji yépp mbaa ma surux la ci pax moo xam ne lépp ca nga koy dugal ndax dooleem moo tax lii mu def nii lu ma neex la te yéen ñii sama njaboot di samay sopp yéen laa ko mën a seddal ndax moom sab seen di liggéey di wut xaalis ñun la kaay defal ma gratuitement ngir sëñ Saliou te boo ko dee xool doo ko xam ci moom ngir professionnalisme gi loole dama koy sant te di ko ñaan te di ko dogul ci Serigne Saliou Mbacké mu doon ab tele te xamuma de xam ma xam ma ko waaye xam na sëriñ Saliou kon nag sant naa leen bu baax waa koñ bi gërëm naa leen yéen ñi ma bokkal cité Apix damaa dañoo jënd fii kër ci côté bi kër di ko tabax tudde ko kër Serigne Saliou boo toppee tali bi tout droit la soriwul bi ko fondement yee mani kon naa jige si foofu ngir balay kër gi di pare taalibe miin ko suñ ko miinee rek fekk kër gi pare na ma ñëw ngeen ak yére ma nii ngir sëñ Saliou nii ngeen ma ak yére nii di bàyyee ko fu ne di ànd ak man ci liggéeyam sëriñ Saliou bi loola de lu ma sant la te lu ma bëgg la am na benn mbokk taalibe ci daayira bi comme daa wax du ma wax turam du ma wax turam ñëw na ci biir weeru koor wi fii ni ma damaa bëggoon a jaayante sëkk bi danaa jox fukki camion suuf baa waxtaan ceeg Pape Ndiaye professeur ni ko comme da koo bëgg a wàcce nee na altine suuf si est-ce que le 24 duñ ko jaayante sëkk ko ba mu ne ma loolu de danañ ci sawar lool ba ne ba ci biir ma ñeewantal leen ngir leetu xadar gi ngeen di programme ak koor gi ni mu méttee ma ne kon naa bàyyi ban kor yi bu suuf si wàccee rek ñu sëkku ko mu féete bor loola kenn ci yéen moo ko def defin bi nag lu ma neex la ndax lim ma wax waaye sant naa ci lool maa ngi leen di soññ itam ci nganu kayaar gi ngan gi am kayaar chaque année muy huitième jour après kor yi bon koré bis ma dellusi ci leen daan def délégation jóge fii dem kayaar def fa ngan bu yaatu waxtaane Serigne Saliou loolee maa ngi ciy soññi ñëpp maa ngi ciy soññi ñëpp bu ko kenn wuti yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm am na it ci taalibe yi ku ñuy wax soxna Mosaan Fay jàppaguma date bi moo tax mënaguma koo annoncé ndax lépp ci man la dépendre moom it seen mbokkum taalibe dañu ko war a maye yaakaar naa xam ngeen ko ci kër gi danaa leeral foofu leer lu wax ju sew kii leeral bu yaatu mooy waajuram dafa ma woo ni ma sama waxi démb mooy sama waxi tey njaboot gi jébbalu ci yow te nekk ci kër gi kun ci war a maye ku ne yaay lépp lijjantiwuma foo koy mayee nag Tamba la ak Ziguinchor la ak fu mu mën a doon en tout cas lépp a ngi say loxo ma ne ko baax na danañ xool ba xam le 27 dina baaxam de déet mars ah bi ma ko waxee loolu ñuy dem ba yàgg ma xalaat ni weeru saxbaan bi saxbaan la woon muy avant koor kenn du ci mayee soxna astafurlah baraxlu baraxlu baraxlu weeru baraxlu kenn du ci mayee soxna weeru koor itam kenn du ci maye soxla wala boog tàmmuwuñ ko ci sëriñ Saliou daaw ko def sëriñ Abdou Lahad daaw ko def sëriñ Abdou Khadre daaw ko def sëriñ Baara mii nee na ma kenn la xam ci ko daan def muy sëriñ Basiru sëriñ Basiru lañ xam ci ku daan maye soxna biir weeru koor wala baral waaye nee na ñeneen ñi te loolu sañ-sañam la xam na tax mu ko daan def ci laa waxtaan ak waajuram ni ko baraxlu wi kenn du ci maye soxna nañ ma may ban naan ndox bu naanee ndox danaa jàpp bis boo xam ni ci lañ ko fas yéenee may incha allahu rabbi ndax ab sëriñ daam nu war a doxee soxna yi ci man ngeen jébbalu dëgg la waaye dafa am lislaam wax dana jigéen ju musta sëy laa nikaaha illa bi waliyi kenn mënu koo maye ku dul ay wajuram ko def nag tëb rek maye ni du ma tàggu kenn def naa ko ba tàyyi ndax man nu ma neex la daan doxe waaye damaa dem ba la muy yàq mu ëpp la muy defar waaw Abou Samb mi toog tee micro yi oh. maa ko may soxna aji jag ci jataay bi tàgguma kenn Pape Ndiaye Mbour mi toog maa ko may soxna ci jataay bi tàgguma kenn oh. moom sax la gën a yéew may bi ma koy may soxna bisu màggal damaa jékki-jékki rek daal ni ana Pape Ndiaye mi ngi nii ana Ndeye Fall mi ngi nii ma fa sëy bi Pape Ndiaye xamul kuy Ndeye Fall Ndeye Fall xamul kuy Pape Ndiaye kenn ku ne yàkkamte gis sa morom ba xam ndax dangaa mel ni bukki wala déet taalibe yi mel ni abu sàmm nag fu nañu dugg fa ko kaay paaba ngi ni kii naa ko kaay day faala ngi ni ku ne xool sa morom waaw mu des mu des waajur yi nag waajur wu ci nekk nag ma dem ba sa kër toog ci sab saal ndeysaan nga yëkkati kàddu bu rafet ni ma yéen lu ngeen def noon la tey jii ndakamu am na ci ak njaboot gu barkeel soxna ñii ñu ñu ci bari maa leen maye loolu la yàlla suñu borom dogal waaye bi ma demee ba gis ni nag am na ci ñoo xam ne boo ko defee waajur yi duñu comprendre te taalibe bi bu mu jee ragal mën na ko yàqal pas-pasam ma gis nag mbir boo ko dee def lu mu baax baax bu yàq ga dee ëpp defar ga rek far ko bàyyi ma ne kon nag léegi ku ci war a tee kuñ ci war a tee maye ñaar ñu ci bëgganteeti waxtaan ak say waajur bu say waajur nee sëñ bi mooy sëriñ delloo nañ ko lépp ma xam nu may def bu fekkee ñoom ñooy mayeet ñu bàyyi leen ñu maye waaye sa am njaboot noonu la mbir mi demee kon nag noonu rek la demee comme nag waa waajuram wax na loolu delloo nañ la lépp yow rek la ñuy diglu bu neexee sunu borom bu naanee ndox bu ñu bés bis léegi communication yomb na ñëpp danañ ko yëg ñu mayee ko ma mayee ko ni ma ko war a maye na ma daan maye ñëpp rek na ma daan mayee ñëpp rek. di ñaanal ñi ci des itam te amul borom kër ñu am ko te am borom kër bi gën ci ñoom. te lépp lu ñu cay sàkku nag sama defal leen ko waaw yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na ngeen gudd fan yàlla na ngeen wér am leen jàmm ak i xewal léegi nag nañ julli ma dóor leen bal bi am dégg leen wax ji nañu julli ma dóor leen bal bi